bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi ñëw ak yéen ci sunu buntub ñaareel ci jësbul murit muy faslun fi saw mi maam Cheikh mooy jàngale koor mu ne faslun li bunt la fi saw mi ci koor wa sawmu koor daal ixtaqit na nga xam bi ànd na naf ahu njariñam moom koor la muy jariñ muqayyadun bi an taxside bi niyati wujudi rabbina koor la ci jiitu maam Cheikh nee na danga ca war a yëg ne yàlla aji am la yàlla donga moom koor keneen moomu ko maa saydihi bi arbaatin ànd ak nag nga tënk ñeent yii al aynu wal qalbu wal uznu wal aqlu nee na nga mën a jéng al aynu sa bët ba du xool araam wal qalbu sa xol bii nga mën a wat ne yéene woon nit lu bon mooy ñaareel bi wal na sa nopp bii nga mën a waat yàlla ne doo ci déglu lu araam wal aqla ak sam xel nga mën koo jéng bul dijjanti bul seet mbirum jàmbur koor daal maam Cheikh nee na ñeent yii muy bët xol ak nopp akum xel danga koy jëng am xel nag lu naqari jéng la gaa yi nag teg xel mooy seen problème teg xel fa daabit arbaatan ci nee na da nga loolu jàllee nag nga jëng ñeent yooyu ma wax li annahumul xawaasu ndax nee na mooy membre de sensation yi nga xam ne moom la nit di yëge bànneex dégg nga wa baxdahum gannaaw ñeent yooyu alxisnu lil jawaarihi nga door a jëng cër yi ci des nag yeneen cër yi muy ay loxo ak payak yu ni demee jéngi sa biir ak jéngi la ca des nga door nga door a jéng yooyu nag duuna ak leen wa surbin door a wax nag door a bàyyi lekk ak naan lekk ak naan maam Cheikh nee na moo mujje dégg nga fi kulli ma daxal naa alayhim wa amma sawmu maam Cheikh nee na ak yooyu yëpp la ca aju wa amma sawmu na ko koor daal lillahil muwaffiqi lis sawaab yàlla mii fay ab yool dong moomam koor kon nag nañ ci bàyyi di tuumal aw nit ak a aw nit yàlla ngeen di wooral ak sëriñ bi ngeen di wooral maam Cheikh nee na yàlla moom koor fa an taxsidu bihi waj allahi nee jublu leen ci yàlla rek taala mi aji kawe fii isharatun nee na koor sax day jàngale day junju li anna allaha al baidul qarib yàlla aji sori la aji jege la baid ku sori la al qarib waaye ku jege la wa antal matlub te yow yaay sàkku dégg yow la ñuy sàkku ci yow antal matlub yow la ñuy sàkku ci yow nga mën a fexe ba réussir ci liñ lay liñ lay nattu bi examen bi ñu la teg wa maalumun anna al mudda laa yaf naa illaa bi safarin mu ne nag distance ba dara du ko jeexal lu dul laxas tukki tukki fan wallahu qaribun tukki ba lum sori sori sori ndeke yàlla ku jege la boo góor góorloo rek dal ci kaw yàlla waaw di mu ne waaye li am ba des jaala xijaaban baynana baynahu wa bayna baxdil ibaad yàlla nag dafa jël barrage barrière mooy xijaab kiiraay def ko ci digganteem ak jaam ñi xataa la tarahul oyun ba bët rak mënta gis yàlla nee na bët yàlla def kiiraay ba bët du gis yàlla illaa mu dawiruhu lu lu dul ko yàlla làkkaale ca làkkam boobu rek moo mën a xam yàlla kon am na exception loolu nag duggul ci ab détail dafa wax moom maam Cheikh Ibra ni fiiha qawlaani am na ci ay wax ñaari wax xiila yaraw na xoo fil janna nee na am nañu wax ne yàlla danañ ko gis waaye loolu ci aljanna te loolu alxuraan ko wax dégg nga wa hada alqawlu fihi jamaatu ahli sunna mu ne jamaatu ahli sunna ñoom it loolu lañ wax noonu lañ ko gisee kullun minan naasi kon am na ñeneen ñu wax leneen lu dul loola mu ne nag kullun minan naasi waaye doomu aadama ñu yàlla sàkk lahu daarun na yëg na daal ak lu mën a xew gis yàlla ak ñàkk gis yàlla am na ñaari kër yu ko yàlla waajal dégg de mën naa nekk daarun fi laaxirati lahu daarun fi laaxirati wa daarun imma janna aw naarun benn dangay ngay mën a dem àjjana jëf lu baax ba àjjana lu baax yóbbu la ci ngërëmul yàlla wala nga def lu ban ba dem sawara nee na waaye loolu daal la fi am gis yàlla nag moom nan ko bàyyi ba ëllëg dégg nga wal mudda baynahuma baidun te li diir boobee nga xam ne ca la loola mën a amee gis yàlla ak dem àjjana ba dem sawara maam si xam da nee na lu sori la waaye nag was wasafaru ilayha as-sawm nee na tukki bay tax nga mën a laxas yegg ca loola nag nee na mooy koor moom nee na nii la gisee koor kon loolu mooy bunt bi ñu doon indi ci koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi seen mbokkum taalibe Moustapha Seck moo ci den jëm kémtulaay kàttanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.